Saplamine, luko waiwa, mudelo loko Saplamine, Saplamine, kukukiba, mudiba loko Saplamine, Saplamine, luko waiwa, mudelo loko Saplamine, Saplamine, kukukiba, mudiba loko Saplamine, Savlamin, look how I walk with the lollipop. Oh. Savlamin, Savlamin, Kokotimba, Murimba loco. Oh. Savlamin, Savlamin, look how I walk with the lollipop. Oh. Savlamin, Savlamin, Kokotimba, Murimba loco. Hey, hey, hey, hey, Tenga de de, Saf de Nyona. Hey, hey, hey, hey. tey nga dee dee saf de na élèves Étudiant ou professionnel, vous voulez une bourse de formation professionnelle pour étudier dans les grandes écoles et universités privées du Sénégal et au Maroc, c'est possible avec le Comité d'orientation éducative du Sénégal, COE, numéro 1 des cabinets d'orientation, qui est une structure éducative qui œuvre dans le cadre de l'orientation et de l'accompagnement des jeunes. Nous existons depuis 2012 et nous avons orienté des milliers de jeunes dans les écoles de formation du Sénégal et à l'étranger. Vous voulez connaître les concours et examens, les épreuves des concours, des sujets et corrections les offres de bourses, les études à l'étranger, les meilleures écoles de formation professionnelle, les métiers et diplômes, veuillez vous abonner gratuitement sur la plateforme www.coesénégal.com. Si vous cherchez n'importe quelle information qui parle de l'éducation au Sénégal, concours, examens, recrutement, baccalauréat, orientation, université, campus N, les concours douanes, de l'ENA, de la police, de la gendarmerie, des eaux et forêts, du crème, de l'ENOA, de l'ENSOA, du Prétalu militaire toute autre formation supérieure, le numéro 1 des plateformes éducatives du Sénégal, c'est la seule solution www.educationsn.com. Vous cherchez une offre d'emploi ou de stage Vous voulez postuler aux différentes entreprises qui recrutent au Sénégal Vous cherchez une candidature spontanée Abonnez-vous gratuitement sur la première plateforme des offres d'emploi et de stage au Sénégal, www.offreemploi.com. Toutes les offres d'emploi sont disponibles dans cette plateforme. Vous voulez étudier au Sénégal ou à l'étranger et vous recherchez une d'études, nous vous invitons à vous abonner sur la plateforme des offres de bourse www.offrebourse.com. Nous avons aussi d'autres plateformes qui vous assurent les infos éducatives au Sénégal www.samacampus.com ou www.étudiant.sn. Notre adresse à Dakar, en face de la foire de Dakar, le 16, téléphone 33 827 06 56 77 733 50 83 78 477 57 34. Notre email comité.orientation.educative@gmail.com ou bien visiter notre site internet www.cosénégal.com. Nous sommes également présents dans tous les réseaux sociaux. Salam salaam gelo ako siya. Ex. Mën na to. Ñol. Xam naa nag no ma. Non non, pour dire vrai. Pourtant, su koñ Dali rek dama dul Bref, nga sa ex Abuja sama diggante ak moom genn xale la woon ak erreur de jeunesse <laughs> saf de waxuñu loolu dafa ñëw ci mouvement féministe ne da bëgg Okocha te seen waa kër nanguwuñ mu ne dafa bëggoon ku la ci jàppale. yowee kan moo la wax loolu saf xanaa yow saf mi nu mel dafa ñëw. teg ci wàllu bopp bi du moom moom la kay waaye soxna si nga paal mais kàddu yu may dégg du yosal soxna si man dama la dural fenkat non non waaye nit ku nekk xam na ni nag xam naa ne bu ma la waxee bu mujj di nga ma gëm te du Okocha dalaa la muti foon bu yàgg <laughs> nee na danga cee ba bëggoon koo yàq astaxfirullah yàq ko biir yow soo si nga ne kan moo la wax loolu saf léegi xam nga nu ñuy def da ngay jug ñu ànd dem ba ci saf leeral ko ba mu leer loolu yaakaar naa jàmm. du jàmm heure bu jot na faaw ma naan samay garab. garabu la. soxna si yow xanaa doo jigéen. damay ah ok. je comprends léegi wax ma fi nga dëkk ma yóbbu. non instant bi sa cas moo urgent demal rek man dinaa débrouiller c'est sûr ne t'inquiète pas. fii ku bee bi. Okocha bu ma ne fii ku bi de képp sa làmmiñ bi si man. eh xamal la xoolal tey sama xol neexul ak fu ñu jot a jaar bëgguma la dugal kuu. dugal kuu Okocha dugal ma kuu Okocha dugal ma kuu rek yow yow am nga sens ba tey tallu ma la. man tamit tallu ma la saf la wër wax ma fu mu nekk. maa la gën a yàqamtee gis sax bu ma ko laaj salaamaaleykum macha allah jag Linga nga soo rafet na torop merci beaucoup macha allah te da ngaa jongo ma ci toog foo dëkk fii rek dara lan la oh keroog dama la gis nga bener ak benn xale bu jigéen bu ñuul te mu wat bopp bi kan saf waaw mom la sa xarit la waaw mooy sama meilleur ami bañ nekkee xale ba tey eh kaay gaawee ma lu daal dara dalu ko dara dalu ko xanaa kañ yow lu la dal muy wër di ko waxtaanee looloo jarale a lijjanti saf lu ma waxal saf de sun tuur bi la ñëw di la jëw naan seen waa kër da ngeen poisson koor sida teg si siringara te loolu noonu yëpp sax garaawul waaye nee na yow da ngay sawlal allah allah allah nga ni saf moo wax loolu te sun bi la ko doon waxee loolu nag bu la yeboo na nga ko lijjanti léegi léegi. na sa xol seet. Sénégal dañoo yaakaar ne doole mooy xeex waaye dinaa former sama association sew 10 woo ñoom Dieyna Ba ñuy def tay maison de la bu yëmbal noor <laughs> man sax mën naa. ben ceinture la ma rawé way mu jangal ñeneen ni self défense ndax man wolu na sama safi défense ñi ñu am sens dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg day daal leen noonu neen onze yow fan nga ak sa toogal ma may ku ma fekk ma toog la médailleuse des fenkat présidente de la fédération internationale de sosolaate membre et conseiller xaalis ak soppi di ko lu may wax. saf dama laa ragal sa kanam ngi mel ni bulu yoo lenn rek laa bëgg nga ubbi say nopp bulli say bët tëj sa làmmeñ ni fi wax tey day lewet sa nah na la nah ay jinne la la jox te jinne day wor du fi nek nak dina am lenn luma lay leral nah yow abrevé nga xam uji de xawma lan mo xew tay waaye waro ma déclarer guerre ah kon sax yow si déclarer guerre nga ton man samay mission démarré na ba yag ta maison ba togal la xaar sama bombe nucléaire ak sama bombe atomique ah sax si man ngay dugg xam dina la jor ay grenade su doyul nak dinaa la yónnee ak Nagasaki bu doyul nak saf ma tegalal samay bombe A bombe H ak bombe oji waa oji ma ànd ak fokk sama promoteur su événement baa ngi oko saa duul yooyu ama fa gisuma ko te ñàkk kersa bala yow fii ko loolu indee golo bi si biir kër gi. Safee sa yaay mooy golo sa nopp yi ak sa boobu xuur ku la gis xam ne rangaama la dese. xoolal Okocha. noppil saf yow amoo loo wax Okocha de golo la la traité. su ma amoon lu gën a ñaaw wax la ko. am na lu ko gën a ñaaw. genre. Mbottu Mbay si ndax Ndour wala waraan Touré wala jëkkëru Marina bi. Okocha génnal kër gi fii ko yow xaw moo xew tey waaye bëgg naa nga wax moom. li xew tey mooy lim fi day saf yow mën ngay sosal may wax ngay wër naan damay tux yàmba comme si la moine fait may wax nga dem police si ma sosal mais di nga xam ni duma ma fils de l'État police pousse gendarmerie poj dig peew ragal lu ma loolu kon okosa saf dalaa fenam fen bu rëy rëy bu toll ne yow nañ ko day naa ko day naa ko day naa ko day moo fi fen di wër di duul naa ko day séentoo sa gàllaaj toj say jinne wor la saraxel ta xam ne dëmm songu na noo sax man nga naan okocha dama biiral di wër si mouvement féministe yi ak association yi di fa exposer sama cas waaye nag ñàkk ko ndax su fekkoon lu waaye xamal nit wax ko kon yow sax kenn du la nawloo waaye nag ni nga mën a mel ndax yombal xiyaam sa ngoon buñ nee ràpp sa gémmiñ gi kenn du la aat yaay yóbbu sa bopp sa te safara mu ngi booy booy booy te fa nga koy xam fii ku sekk yow jëlu naa ni te nga da ngaa war di aji xam ga sax kenn nobu ko ndax duuful nooyul xiimul jiimul aliful baawul dóorul bayiwul nga topp ko rek léegi nag oxo am na raison sa kaw raison yow kay pays nga am sama kaw man maa ko doo wax